Assane Sylla di ku ñu ràññee lool moom mi jiite MPS di mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal yëkkati kaddu yu doy waar teg ko ci plan Sénégal émergent ci seen ay programme ñoom ak façon bi nga xam ne moom lañ bëgg ñu jàngale ko suñu doom yi wàññi li ñuy wax mariage précoce bi wàññi tamit li ñuy wax la fécondité chez les adolescents fécondité fécondité su fekkee dañ ko bëgg a wàññi kon ça veut dire ni njurum doom lañ bëgg a wàññi fii ci Sénégal moom conseiller municipal bi ci mairie bu Diourbel di xam ne na te njiitu réew mi la la république Macky Sall di xam ne ne dinañ fa jëlee lu toll ci juróom-ñaari junni ci ay milliards loolee bëri na ay ndëgg sërëx yuñ ci lal fan yi déggoon ngeen Macky Sall ne dig nañ ko ne dinañ ko lebal lii bokk ci condition yi nga xamante ne bi moo waral ñu man laa lebal xaalis na ca lañ fa tënke ci deuxième phase PSE bi mooy wàññi njur mi wàññi fécondité bi fii ci Sénégal kaddu yooyu nag mu koy méngale kaddu yi nga xam ne Bill Gates yëkkati woon na ko dafa bëgg fileeg deux mille vingt cinq mu wàññi lu mat ñaari milliards ci ñi nga xamante ne bi fécondation wu nit ñi di amee lu ci ëpp ci Afrique gii Assane Sylla di ñaax askan wi ne bépp programme boo xam ne nguurug Sénégal gi lal na jëm ci wàllu ñàkk di ñaax askan bi ngir ñu bañ a nangu lu ni mel ay toqal ay garab seeni doom wala ñàkk seeni doom wala toqal leen ay toqantal wala ñu naan dañuy wër di vaccination ci kër gi na ngeen ko moytu te xam ne ñoo ñu di pikiir seeni doom seen doom yooyu fileeg dix-huit ans boo moytul ci jaasir wala dootuñu mën a jur wala buñ juree benn wala ñaar dootuñu mën a jur loolu loolu mooy li nga xam ne mooy pexe tubaab ci njeexantalu xam ne ne loolee lépp daal ay jafe rek waaye tamit mu daal di indi beneen firnde muy vidéo boo xam ni ci ndajeem PSE la ñu ko doon amalee te ñu filmer leen te kenn yëgu ko. nous allons travailler continuer à travailler avec le gouvernement sénégalais euh, pour euh, notamment euh, euh, améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants sénégalais et la réduction des mariages précoces et de la fécondité chez les adolescentes tout en